jàkkaarloowaat seen jëmm yu tedd yi di santaat yàlla borom bi tabaraka wa taala di ko dellu di ko santaat di ko santaat bu baax a baax a baax a baax ci euh, xéwal yim ñu may ci semaine bi yëpp semaine yii yëpp sax laay wax ci ñu liggéeyal ko moom borom bi tabaraka wa taala liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te lépp nag di sunu njariñ ci xam-xam ak ay jàng ak ay jàngale waaye yéen ñëpp ak seen xol yi ak seen ruux yi ak seen jëmm yi yëg ngeen li nga xamante ni moo tax ñu wax ak ñuy wax ak yéen ci waxtu wii mooy la semaine internationale dédiée à Seydina Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiallahu anhu le détenteur du sourire mohammedien iftitah الأسبوع الدولي المخصص لسيدي أحمد التجاني صاحب الابتسامة المحمدية ok moo ngoog mooy semaine bi nga xamante ni monde bi yëpp ñoo koy ànd ñu jagleel ko ki nga xamante ni mooy Seyd Ahmed Tidiane mi nga xamante ni mooy borom muuñ muuñ ga nga xamante ni moom la doonee ca borom muuñ gu rafet ga muy Seydunaa Muhammad borom muuñ gi nga xamante ni su soo ko gisee rek jaratul sax mu lay wax wala mu lay jox wala mu lay defal gis gi nga ko gis rek doy na pour sa njàqare yëpp tàggali ko ak yow moo tax ñu tuddee woon ko Abul Abbas yi su ko defee nag kon euh, alhamdulilahi rabbil alamin semaine bi dafa am ñaari taxawaay yu muy am moy semenu cheikh tijane la radiyallahu anhu waye semenu tamit sourire la lol motax euh daño bëgg photo yi nga xamanteni yépp mom lañuy défar ak texte yi yëpp mu and ak sourire ndax so leen gisé aduna bi nit ñi dañoo austère dañoo dañoo dañ né secc nit ñi dañoo dañoo nakari sourire danaka amatul ci aduna bi te nit ñi dañuy def li leen neex waaye ndekete sourire mën na am gis ngeen ku ku gagné rek ci mondial yeeg football yi sa dëkk sa réew ñëppay sourire waaye sourire boobu li muy baax baax baax sourire bu limité la dans le temps et dans l'espace ndax suñu paree rek après jublu ci leneen waaye sourire bii nga xamante ni moom la ñuy junj mooy sourire bi nga xamante ni soo ko xësee ba def da ngay ànd ak moom ba biir aljanna ndax moo ngi jóge ci borom dëgg dëgg suurir bi muy Seyd Ahmed Tidiane mu jëlee ko ci borom dëgg dëgg dëgg suurir bi muy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee mbokk yi semaine baa ngoog maa ngi ñaan mbokk yëpp ñu ànd jàng fatiha jàng salaatul fatihi ñu ubbee ko euh, semaine bi su ko defee ñu lancé ko ko ngir yàlla barkel ko yooyu une semaine spécial buñ ko déjee nga xamante ni moom rek la ñuy waxtaanee moom rek la ñuy feeñal ay jàngaleem ay orientation moom la ñuy feeñal dundam feeñal faasam feeñal ay njabootam feeñal ay muqaddamam feeñal ay xulafaawam feeñal ay soppeem ba leeral lu bëri ba kenn sa xel dootul jaxasoo am na ñoo xamante ne ay tiijaan lañu waaye xamuñu cheikh dañ leen ko war a xamal am na ñoo xamante ni duñu tiijaan du jullit te dañoo war a xam cheikh Dans pri di mucc mbindeef yalla yi muy góor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi kon alhamdulilahi rabbil alamin euh, sunu soppe ci chers frères en Dieu chers amis chers cheminants dans la voie d'Allah dans la recherche de la satisfaction divine nous déclarons ouverte la semaine internationale euh, dédiée au Qutb au Raouf, au Khatmou Tijani Maulana Cheikhna Ahmed Tijani le détenteur du sourire mohamédien. Donc cette semaine est, lui est dédiée dans le but exclusif de revisiter ses enseignements, ses orientations, ses positions, mais aussi le travail incommensurable qu'il a eu à, abattre pour euh, la kalima, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mais aussi pour faire connaître son éparpillé un peu partout dans le monde dans tous les continents, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, nous allons revisiter leurs écrits sur notre maître Cheikh Ahmed Tijani. Nous allons essayer de faire comprendre aux frères qui sont Tijani et qui ont peu de connaissances sur Cheikh euh, les dimensions de Cheikh Tijani. Nous allons aussi essayer d'apprendre aux frères, euh, même pour les frères qui sont musulmans. Donc, Inch'Allah, nous allons aussi essayer de partager avec les frères qui, sont musulmans et qui ne sont pas Tijani euh, certaines connaissances sur Cheikh Tijani. Nous allons aussi essayer de partager des connaissances avec les frères qui ne sont même pas musulmans et qui doivent tirer profit des bénéfices, des lumières, des enseignements et des orientations du Qutb Maulana Ahmed Tijani. Ce que je, suis en train de faire par le shérif qui shérifie les shérifs qui shérifient ceux qui ne sont même pas nés shérifs, Cheikh Ahmed Tijani Parce que c'est un honneur, en, fait, cher frère. Parce que c'est inédit, c'est la première fois dans l'histoire de la euh, En fait, c'est la première fois dans l'histoire de la Tariqa Tijani qu'on assiste à une journée internationale, à une semaine internationale, à une semaine internationale dédiée à cette Cheikh, mais aussi avec euh, une telle envergure, c'est-à-dire dans euh, les plateformes euh, des réseaux sociaux, hein, euh, où l'on redonne la parole à deux chers qui a, en plus de la capacité de parler aux intellects et au cœur, la capacité de parler aux roh. Et Alhamdulillah, c'est ça qui fait sa force et sa dimension insondable. Donc, Inch'Allah, chers frères en Dieu, la semaine est ouverte, Inch'Allah. soyez prêts et soyons tous au service de notre maître, le Qutb Tijani, radiallahu ta'ala anhu. Inch'Allah ta'ala, nous procéderons à beaucoup de causeries, des directs, beaucoup d'interventions dans différentes langues, Inch'Allah, mais aussi euh, nous procéderons à des directs, des alloceries, comme on l'a fait hier, pour pouvoir permettre aux frères, dans les lieux où ils se trouvent, Inch'Allah, de pouvoir participer à leur manière, en posant des questions, en faisant leurs remarques et aussi en partageant, en partageant avec euh, le monde entier, l'humanité, l'univers, euh, euh, leur amour et leur relation avec notre maître Cheikh Ahmed Tijani. comme disait Seydi Ibrahim Rayahi, Rabbi inni saddaqtu kulla waliyin راعيا قدرهم بعين احترامي آه، الحمد لله رب العالمين بار ديغال سور تير الله nous aide et nous assiste par la baraka محمد صلى الله عليه وسلم لا جور لا سمين ان شاء الله ان شاء الله لا سمين ديجي الشيخ احمد التجاني اي officiellement ouverte à vos plumes à vos commentaires à vos à vos euh, euh, partages avec euh, les frères. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed et de notre maître, le maître des Awliya, Sheikhna Ahmed Tijani, Allahu ta'ala anhu. وآخر دعوانا أن الحمد Hamdulillahi Rabbil العالمين